région ak ñett ci Sénégal muy euh, tournée nationale boo xam ni dañ ko jaglewoon suñu station régionale yi ak suñu télévision zonale yi parce que tey RTS fukki chaîne rajo ak ñaar la am ak juróom-ñaar fukki chaîne ak juróom-ñaar rajo fukk ak ñeent yi yëpp mu ci région yi Dakar am rajo Sénégal Dakar FM ak euh, chaîne nationale donc ñu amit télévision boo xam ni dafa uuf Kolda Sédhiou Ziguinchor muy RTS 3 beneen bi uuf région de Tamba ak Kédougou Euh, excusez-moi ouais, ouais, d'accord alors bi ñu demee loolu lu ko waral c'est parce que état du Sénégal RTS daf ko jébbal benn projet ne état bi mbirum rajo ak télé dafa nekk di soppeeku te suñu continuer di liggéey nii dootuñu méngoog jamono te ñépp dinañu raw parce que informatique bi mu ngi ciy dugg numérique bi maanaam dugg na ci doole caméra yi amatul ay cassette ay carte la ñuy am donc man ak sama ay collaborateur ñu tabax projet boo xam ni presque vingt milliards la euh, président Macky Sall nangul ñu ko benn pàcc bi mu jëkk ko génnee ci francophonie ñu acquérir benn partie matériel bi loolu moo tax ba ñu réussir couverture sommet francophonie 2016 mu mottali financement bi looloo ñu jàppale ñu assurer couverture élection législative yi presque quarante listes la woon du lu yomb te loolu ñun obligation la woon ci ñun ñu assurer couverture élection présidentielle assurer aussi presque en direct tous les conseils des ministres délocalisés gis nañ ñu fépp loolu aussi jàppale ñu ñu ubbi rajo Sédhiou ubbi rajo Kaffrine ubbi rajo Kédougou donc loolu soo ko booleek télévision zonale bi bi nekk tàmba ak télévision zonale bi Ziguinchor ak boo xam ni war nañ ko ubbi ci maatam nga xam ni investissement bi foofu la dem bi ñu tukkee nag dem gis nañ nag que franchement pour l'essentiel station yëpp vraiment am nañ xar kanam bu bees te kooku liggéeykat ji fa ne ñoom ñoo ko wax te ñun wone nañ ko ci télé bi gis nañ ni it li leen doon manqué ci mobilité problème oto li leen doon manqué ci maanaam ay casque ay enregistreuse loolu yëpp ñu réglé ko ñu def aussi ay investissement yu takku ci émetteur pour que ñu mën a jottali émission yi fépp ci région yi loolu ñu kontaan si lool et liggéeykat yi aussi rafetlu ko population yi aussi rafetlu ko wante dañu remarqué ni que malgré effort yooyu centre émetteur yu am ay émetteur yu bees ak yépp studio yu am ay équipement yu bees ah rajo yi doo leen dégg partout dafay am ay zone de silence ni ko ingénieurs yi di woowe foofu nag lenn li ñun ñoo matalewul mbirum satellite mbirum nu ñuy jokkale station yi ak centre émetteur yi mais leneen li ci gën a bari problème internet la Sénégal tour bii ñu def daf ñu won ni soo taalee sa téléphone internet du la wuyu tout le temps doo ko am tout temps te loolu dina metti trop su fekkee TNT bi maanaam télévision numérique terrestre nga xam ni lu ci bari ci fibre optique lay jaar excusez-moi <coughs> loolu su ma suñ ko matalewul dina am problème parce que TNT incha allah bi nar a ñëw dafa wéer performance am yépp ci côté n'est-ce pas fibre optique heureusement que ADIE am na fi mu ngi def liggéey bu rafet mais ARTP ci suñu xalaat war na gën a taxaw parce que rôle mooy saytu loolu la qualité de service mais ñun jooytu nañu ko lool parce que dafa nekk di gàllankoor suñu liggéey incha allah loolu message boo xam ni dinañ ko jottal autorité yi parce que tey internet mooy base liggéey di ngeen gis sax presque dootul amati yenn satellite yu ngand yi dootul amati yenn pylône yu ngande yi yëpp ñu ngi koy jaarale ci suuf télé bi di ci jaar rajo bi di ci jaar internet bi di ci jaar te loolu mënuñ ko comprendre parce que aussi suñuy demee bay def TNT c'est pour libérer fréquence yoo xam ni da nga koy jagleel normalement ay bande passante pour que ñu gën a mën a am internet alors leneen li dañu seetlu ni aussi que ci suñu station régionale yi am na doxalin bi ñu bu ñu teg te loolu yàgg na loolu daf leen tënk te nu leen tënkee day gàllankoor également seen ay performance ñu décider ni ñun ak ñoom dinañ toog incha allah xalaataat nan ban type de gouvernance nan lañ leen di yore wala sax nan la ñuy yoree ñoom seen bopp gën a am autonomie koom bi ñuy am ak bi leen di niveau centrale bi di yokkal nan lañ ciy mën a euh, fayee seeni agent nan lañ ciy mën a jëndee carburant parce que imagine que même groupe électrogène bu station Mbacké wala euh, Diourbel su amul carburant dakaar nga war a woo pour mu jox la carburant kooku amul sens sa groupe électrogène su paane amoo droit jël prestataire de service il faut que nga woo dakaar pour que nit ñi ñëw dépanner la donc alors que station yi ñu ci bari ñu ngi produire ay recettes publicitaire am nañu ay caisse d'avance loo xam ni war nañ ci gën a taxaw pour mu gën a régulier mais aussi yokk caisse d'avance pour nga wut agent buy bale il faut nga def appel d'offre national te tey ñu ngi wax décentralisation acte trois territorialisation des politiques publiques kon danga nga war a jox entreprise gox bi n'est-ce pas les opportunités pour que ñoom aussi ñu war a ñu mën a jàppale nguur gi mën a également consommer ci l'argent public mais su fekkee lépp dañ ko centraliser dafay euh, vraiment handicapé euh, performance su euh, rajo yi ak télé yi kooku aussi incha allahu rabbi dinañ ci taxaw bu baax a baax ñu gis ni aussi que fu ñu dem ñi nekk caché dañuy jooytu def naa fi ñaar fukki at bi ma nekkee fii avant may am jëkkër ba léegi am naa doom boo xam ni sax peut-être et cetera bon loolu ñun mun nañu wax ni suñu fóot la parce que on a laissé faire parce que sa njëlbeen comme Sorano la la woon rek da ngay ñëw nga woy def sa prestation ñu fay la nga dem rajo ak tele aussi noonu la doon doxe da ngay am feneen fooy liggéey ñu jox la deux heures pour nga animer benn émission parfois dimanche la parfois samedi nga nekk enseignant wala nga nekk infirmier am wala nga bëgg musique dégg nga ñu jox la ay tranche weer wi su deewee ñu neexal la tuuti jox la ndàmpaay pour que nga mën a fay sa transport mais dafa dem ba nga xam ni comme Sénégal amul woon ay école yuy former ay animateurs amul woon ay école yuy former vraiment des comédiens dignes de ce finalement rajo bi télé bi ñoom ñooy école foofu ngay jànge métier bi bi ngay tout tànk wu bi ngay xale ba màgg ñu lay dénk parfois micro parfois ngay dem reportage su fekkee technicien nga nga xam nan la ñuy manipuler Nagra wala nan ngay pousser bouton ou bien nan ngay ñenn ñi avis et communiqué lañ commencé après nekk animateur et cetera donc loolu yëpp ñu ngi koy saytu seet ñu ci mën a jàppale pour que changer leen ba ñu mën a nekk permanent jàppale leen nag ci formation valoriser leen seen acquis loolu dinañ ko def. ñeneen ñi nga xam ni ci cachet la ñu war a mën a des ngir seen age wala heure yi ñuy consacré rajo bi dafa néew ñoo ñu dañ leen ne dañu dem xayma seen contrat ñëw seet si chef de station bi comme ça ñu waxtaan ñu d'accord ci benn euh, montant annuel nga xam ni peut-être dinañ ko ko fay par mois wala par deux mois wala par trois mois hein loolu su at bi jeexee su fekkee station bi gis na ni kii am na ay performance mu ngi xëcc publicité wala mu ngi xëcc ay auditeurs surtout auditeurs parce que ñun duñu rajo commercial est-ce que li muy def amal na askan bi njëriñ mu seet ndax day renouveler contrat mais loolu day tax euh, producteurs extérieurs yi dinañu wàññeeku mais aussi ñi fay des yàlla dina leen jagleel cachet yoo xam ni vraiment dina peut-être sax parfois ëpp salaire walla mu jege ko kon loolu mooy doxalin bu bees boo xam ni bëgg nañ ko expérimenter defe naa loolu la maintenant laaj nañ ñu ci diversité culturel maanaam aada ak cosaan nan la ñuy def ba gën ko fësal euh, xarala yu bees yi ñu am may nañu léegi ñuy dem ak suñu oto yi fu gën a sori capitale régional bi gis nit ñi enregistrer leen nettoyer ko parce que tey moom pour enregistrer yaa euh, support yi bari na yemb na ba nga xam ni dinañu def comme rajo Sénégal à l'époque nga xam ni euh, réew euh, dëkk région yëpp yëpp yëpp la ñu doon enregistrer seeni ay artistes seeni ay comédiens ba nga xam ni bon ça reflétait vraiment la diversité culturelle bi am au niveau national di nga dem ci basar yi di nga dem ci bédig yi di nga dem ci pël firdu yi di nga dem ci halpulaar yi di nga dem ci wa ferlo di nga dem euh, comme euh, séeréer yi ak euh, kooku doon woy ndaga à Kaolack et cetera di nga dem ngoyaan tout ça loo xam ni deewul ñun ñoo yaakaar ni dee na parce que déggatuñ ko rajo comme niñ ko doon déggee mais ku tàmm di voyager di dem ci dëkk yu ndaw yi cosaan boobu mu nga fa ba léegi te ñoom du ñu bàyyi mukk cosaan boobu dee parce que gisuñu lu leen ko remplacer kon nag ñun euh, li ñuy ñaan yàlla mooy suñu mission bi mu déboucher ci ñu mën a gën a mën a répondre ci suñu slogan parce que service public lañu le public notre raison d'être parce que il faut que rajo bi soppeeku ànd ak jamono continuer di def sa mission de service public di informer mais aussi di divertir un divertissement boo xam ni ànd na aussi ak sunu ay valeur maa ngi leen di remercier